voilà merci. c'est juste une, un truc oui, que mm. parce que ñun école dañ ko fawee. parce que ñi toog fii di wax yëpp c'est grâce à l'école waaw am na euh, débat bi ni mu bu ñu toll am na koo xam ne kenn ko invité. Mm-hmm. dañuy waaw pour nga am pour ñu invité la fii il faut nga am benn niveau te loolu école surtout école publique moo ko permettre parce que fii ñi ëpp euh, ci askan bi seeni waajur seen loxo jotul woon seen ginnaaw. Mm-hmm. donc école publique boobu ñuy ŋàññi di ko xas lu ñu lu ñu mën a am moo leen ko defal moo leen ko def sinon rek da ngay nekk ouvrier baa nga nekk artisan baa baa nga nekk leneen ginnaaw loolu euh, xam nga Covid bi moo fi gënoon a garaw def nañ examen yi am na fa ay ay ay grève yu yu yu garaaw yu fi am ñu def suñuy examen parce que l'éducation euh, conformément à l'article 8 de la Constitution est un ca à dire lu ne même ci temps wu guerre les gens ils se débrouillent pour xale yi jàng même ci temps wu guerre. Ah, donc cela veut dire quoi euh, lii am ci système bi nag c'est-à-dire c'est sur des décennies lañ ko accumulé donc les les les les gouvernements d'avant dañu jël de mauvaises décision sur le recrutement des des des enseignants surtout ils ont pris de mauvaises décision hmm. jël ay enseignants kenn du leen former. ñu rek balancer leen ci directement ci ci classe yi loolu euh, boobu léegi ñu ngi koy corriger ba léegi ñu ngi corriger ay décisions yoo xamante ne bii ay gouvernement précédent ñoo ko ñoo ko jël mais nag def nañ ay réformes yu mag tey jii bal nga jàng jàngale le minimum c'est le bac. Mm-hmm. doo doo jàngale te jaaroo CRFP bu dee ci haute école yi ndaw yi wala jaaroo FASTEF. bu dee ci école yu digg doom maanaam moyen moyen secondaire donc jàngalekat yi am léegi dañ leen di former dangay gis ñoo xamante ne doctorat la ñuy am ñu ngi ci ñu ngi ngi ci primaire wala ñu ngi ci moyen bi donc cest à ñu ngi corriger mais loolu nag l'investissement éducation est un boo xam ni c'est un investissement à long terme donc boo yàqee ay at bala muy ñëw ci kanam dina ñëw d'ailleurs résultat yi ñu koy commencer gis parce que ak loo mën a wax ba léegi ñu ngi wax suñu étudiants yi xajuñu ci université yi ça veut dire que <laughs> ñu ngi am bac ak loo mën a wax dañuy wax ne suñu élèves yi xajuñu ci collège yi parce que on a encore des effets euh, des effectifs pléthoriques xajuñu ci lycée yi. Mm. donc ñi nga am BFM ñi nga am CFEE ñi nga am entrant yi sixième bien que taux de bi bari na taux d'échec bi bari na mais nag ba léegi nii wax dëgg yàlla bokk boo ñu comparé woon ak sous région bi y a rien à voir ensuite fondamentalement daaw on s'est posé la question mais lan moo war a perturbation yi ñu les enseignants sont mal payés ay salaires yoo xam ne dañ ko doublé am am na enseignants yoo xam ne cinquante mille lañ commencé re léegi le minimum booy commencé deux cent mille francs jëm kaw donc donc enseignants yoo xam ne dañuy am un million léegi di salaire comme kay. Hmm? gouvernement waaw oui waaw oui. enseignants ils sont dans ah la boolee xam nga enseignant dafa am. dafa am man nga nekk par exemple euh, professeur d' enseignement secondaire ma nekk professeur d' enseignement secondaire ma def vingt ans yow nga def dix ans lu ñu am salaire lu ñu am avantage parce que chaque année dafa am avancement hmm. te en fonction de l' ak yooyu hmm. dafa ay loolu donc c'est-à-dire que gars yi léegi salaire yi baax na c'est-à-dire suñu am na suñu parent ba ci un million déggoo li ma la wax man kay man mi sama salaire su ma ko dama koy noter léegi man sama salaire su ma ko su ma ko tiimee man kay may exemple bi suma ma salaire su ma ko tiimee damay wax dëgg dëgg suñu sunu grand yi ak suñu doyen yi xaw nañoo dee